Euh, yok ko maqama dafa am ku ñëw ci sëñ fallu ben naari gannar la mu am gom hamne. xamne euh, moy seen euh, gom ñut de gomu deeyaale bambara mom lay tuddee kelebe yalla dogal mu fajj ko gannar gi yeb wérul fu mu dem du wér mu deg sëñ fallu mu dal di war gele mom ñëw tuba ken mu ko jegañ ngir xet bi gom ba nga xoot mu ngi ci takk lepp yoon ko top di mbiw rek mu ne tuba man de li mom and ci yow sëñ boo ne ko waaw mu daal di muuñ euh, moom ku ku amoon charme la mm, sëñ Fallou saa soo gisee rek boo jaxasoo it da dellu ci sa sago mm, miin naa ko lool daana ñëw euh, ci wàqi naan foofu fa fekk Cheikh Moulay Hassan radiyallahu anhuma booba maa ngi fare ndaw miin naa ko lool yal na yàlla taas ci barkam yaa rabbi moom naari gànnaar bi teg tànkam ne ko man di lii laa la àndal mu xool ko xool ko mu di jël benn këyit am def ni lem ko jox ci saa si mu jox ko naar bi ne ko def ko ci naar bi def ko ci ah naar bi balaa mu yegg gànnaar góom bi wow kong naar bi di dox sooxatul benn weñ toppatu ko benn xet amatul naar bi tekki tànk bi gis mu mel ni yaram bi ci des dara nekkoon fa même lëgët feeñatul naar ak euh, waa macha allah euh, euh, bëgg xéewal mu ne moom dafay sa téere bi lu ci sëñ bi bind xanaa bu ëllëgee moom te mu koy defal nit ñi di ci jël jamono mu fekk ca kayit ba sëñ Fallou lim ci bind mooy góom bàyyil naar bindu ci ay alquran bindu ci hadis góom bàyyil naar lii la bind ci kayit ba